ñee waaw dañuy pour am na ñoo xam ne dañuy nelaw dañ bëgg ñu yee ñun ñun ci groupe boobu lañ bokk. Hmm. Euh, parce que ce débat est tellement intéressant surtout pour la cause M23. débat sur le parrainage débat sur les coalitions je rappelle juste que ni bi ñuy def parrainage bi boobu ñu ngi def dialogue opposition ak pouvoir boobu maa ngi ko wattu moo amoon. pouvoir bi bett opposition daw dugal benn procédure pour ñu def affaire parrainage li tax ma koy fàttali dañ ci amoon suñu benn camarade chargé de la communication de de la COS M23 dañ ko refroidir sax parce que dañ ko déféré jugé ko au tribunal jour boobu maître El Hadj Diouf jàppale ñu bu baax parce que ñi ngi defoon ninki nanka def conférence de presse chez Pape Diop contre ce parrainage le lendemain c'était un jeudi nous tous on était ensemble sur ce débat là et beaucoup de choses sont passées par la suite ba nga xamante ni y une réelle confusion dans la lecture que nous nous devons avoir de la situation dans les nos relations je dis nos relations avec les acteurs politiques surtout sur ce débat là parce que boo seetloo exposé yi euh, der wax na ko mais xëy na awma ci même compréhension que moom une liste officielle a été déposée une liste nationale Et la direction générale des élections n'a pas estimé nécessaire de falsifier cette liste-là. ñu dugal liste départementale sans pour autant la citer dans le débat mais moom la ñu pointé du doigt depuis lors disant que une liste est falsifiée sans pour autant prêcher pour leur chapelle loolu musul am Sénégal par rapport à la direction générale des élections ñu plaindre depuis Ablaye Wade que ni falsifié nañ ay liste ñu déglu ay témoignages même bu dee ñu ne lundi à partir de 66 euh, jours la wax lundi lay commencé officiellement dinañ wax liste yi yi ñu validé ak yi ñu invalidé. Hmm. mais sànq dañuy wax ne que ay da wax na ko dañuy ñaaw njort dañuy appréhender nous sommes proactifs ñi ngi jàpp ne que coow mën naa am et peut-être. bu dee dañu suivre li nga xamante ni moo ñuy àtte ñun ñëpp muy le cot électoral mën na am ay liste ñuy validé ci liste départementale Dakar bi mën na cee bokk ndax dañu war a toog xaar bañ ne am na. Hmm. ñu doog a jug di daw wala dañ ko war a mën a waxtaanee pour xool nan la ñuy fexee jàmm am ci réew man dama jàpp ne que c'est un débat qu'on assumé assumer et qu'on doit li nga wax sànq maandute am na mais dégg nañ ay témoignages. Hmm. de part et d'autre liñ fi déglu sànq. am na yeneen version yu ñu ciy dégg ban moo ciy dëgg ak bu ci dul dëgg xamuma mais nous sommes obligés d'en débattre si c'est la direction générale qui est qui est accusée d'avoir falsifié liste bi mais loolu lu ñu war a lijjanti la parce que du seen sañ-sañ waruñu ko def day indi fitna ci réew mi. mais bu dee laa responsabilité tamit ñi nga xam ne ñoo yor liste bi wala ñoom la ñu mandaté. Mhm. ñoom ñoo am ay jiixi jaax seen biir ba kii di wax lii kii di wax la li mhm. la sëriñ bi waxoon taalibe bi laay wax. Mhm. ba mu ko laajee paasam sëriñ bi naan ko ndax ma def ko orange money baa ma def ko <laughs> nu mu tudd euh, cash mu ne ko bu mu ci mënti doon rek na gaaw. parce que ci laay paas. Mm. c'est-à-dire coow lii lu mu ci am rek. Mm. nañ mooy dëkk bi jaxasoo te parce que duñ ko naam. Mm. c'est très politique et ça concerne les politiques parce qu'à un moment donné il faut qu'on assume et qu'on dise que nous sommes pris en otage par ce de l'opposition comme du pouvoir on l'assume. et on l'a toujours dit la cause en tout cas c'est toujours démarqué. pour dire que ni doy na sëkk. parce que tamit bu dee lu mel am na. ñu ci waxtaan ñuy woote naan nañ génn nañ joxe bakkan no ay génn ak joxe bakkan dafa doy Sénégal pour tere de qui pour qu'un crime qui a été commis par qui et qui profite à qui mm-hmm. en tout cas ça ne profite pas mm-hmm. bu mu nee man nag mooy li Abdou doon wax le tout euh, pas le commanditaire lijjantiwu ma xam nga lu ma lijjanti hmm. mooy dafa am loo xam ne dañ ko war a respecter hmm. pouvoir comme opposition muy hmm. les chartes de ce pays la constitution le cote qui organise ces élections que pouvoir bi respectueux par rapport à ces principes bañ a léser kenn loolu lañ fi ma sa xeex et que effectivement ku ci juum nga am grandeur ne dangaa juum man je ne pas de crime parce que kenn matul ku ci juum nga nangu ne da ngaa juum ci lii mais ñu bañ emballé askan wi ci seen ay conflits personnels wala si ay njumte yu ñu assumé wul parce que nag waratuñu nangu ñuy dund ba jékki-jékki pour des politiques yoo xam ne xamuñu seen bopp waxin la tey jii on parle euh, de de d'une idée de délimitation des mandats présidentiels au Sénégal par qui par quelqu'un qui nous avait engagé à mourir dans ce débat mm-hmm. mu dem ba heure bu boppam tàngee mu naan dañu war a délimiter lan la war a mën a engagé lan la war a mën a indi ci réew mi ci bëgg-bëgg benn président de la république ay ay ay ay assoiffé de pouvoir yu ko wër ñu ne dañuy xalaat troisième mandat ba sénégalais war cee mën a dee warutuñu nangu nekk otage acteur politique yoo xam ne ils sont dans l'opposition des fois ils sont dans le mensonge vous excusez le terme des fois ils dans la manipulation ci seeni intérêt bopp ñu bëgg yóbbu ay sénégalais ñu leen di rey loolu mooy dakk ci réew mi il faut qu'il y une prise de conscience citoyenne je ne parle pas de politique parce que la chose politique a montré ses limites c'est de la dynamique du séddoo au lieu de séddale de dynamique de clientélisme yoo xamante ni dañuy mu boo askan wi bu ñu faloo ñu séddale séddoo ko seeni jegeñaale ba ñu foog ne Sénégal dafa foofu foofu fekk pauvre nañ koy séddalee moo ñu ngi koy séddoo seen mbir moo moo doy mhm. la dynamique de gouverner ensemble gagner ensemble gouverner ensemble partager des responsabilités ensemble c'est des ministères c'est des directions c'est des agences c'est des militants c'est des recrutements clientélistes ñoom ñoo rey Sénégal toroxal ko nga ngàcce ngaalaama ñun ñëpp ay dañ yàgg di xeex mais à un moment donné nañ waxante dëgg askan wi nañ yeewu nañ yeewu bu ñu yeewoo rek dinañ yeewi seen bopp soxlawul kenn di leen yee bu ñu xippee seeni bët waxoon naa fi xippi leen seen i gët ubbi seen i nopp dofuñu que ni tey jii la prospective c'est quoi dans cette dynamique conflictuelle génn leen xeex booy deewati ci loo xamante ni doo xam lu ciy dëgg ak lu ci du dëgg parce que par le passé certains de ces acteurs qu'ils soient de l'opposition comme du pouvoir ils ont fait des témoignages yu leen dugal tey démb nit taxaw fi ne fi ne xaraam troisième mandat démb ñu taxaw na fi nekk diw moo yàq réew mi dañ ko war a tëj wala dañ koo araamal tey ñooñu bu ñu àndee seen biir ñii naan troisième mandat ñii naan amul problème stratégie politique ba lu lu ñu ne woon dafa bon ñu ñu c'est la démocratie des vomissures mhm. c'est ça le problème c'est-à-dire c'est des incapables yu mënul seen bopp yu amul intransigeance seen bopp yu joxul cër réew mi yu joxul cër sénégal yi débat bi duñ ci dugg lu dul loi nee na nañ ko appliquer te duñu nangu muy le président Macky Sall am na fu ñu koy xaar muy opposition bi ñu naan nit ñi génn leen xeex leen bu dee joteeg bu deewul jotul ça ne nous concerne pas l'essentiel nous serons garants par rapport à ces principes mais bu ñu kenn sonal ku ci def nag wala ku ci sat génnal satal sa bopp parce que nag du ma ne woon naa diw dama damay woote du ma ñëw ci émission bi te du ma woote deer jamais du ma ñëw ci émission bi te du ma documenté te nag ñu ngay woo concerné direct dafa lu ñu wax loo xam ne des fois du méngoog la ñuy coow mm. weddi bu dëggu bu dee catholique nga boo waatee rek catholique yi xam nga wax na dëgg bu dee jullit nga nga woo yàlla mu seede la ngeen ngeen ngeen firi askan wi ñu bañ a dem ci fitna lii laa fa def kii laa ko defandool wala kii moo def lii mu leer bu dee nag problématique yi nga xamante ne c'est intra ñoom seeni biir aada dafa wax lu am solo dafa ne bës du ñàkk mooy un jour viendra walla moom la ñuy dund que ni que les gens seeni dynamique yi ñuy jël et que ñu xam ne Sénégal bi caaxaan defaru ko théorie defaru ko ak ni ko yenn politique yi di waxee discours defaru ko c'est-à-dire dañuy woote malal dafa saf ñun ñëpp nag dañ cee yàgg mais xam nañ la mu laaj la baax ci Lénine la ñuy convoqué l'intransigeance par rapport à soi-même d'abord on vous avait toujours dit que le problème du Sénégal c'est pas un problème de compétence les compétences sont diversifiées ñi ngi fépp problème de leadership par rapport à la morale la probité l'intégrité de ces dirigeants yi ñu nar a am li nga xam ne nag ñu ngi koy gis fii te nguur ñëwagul bu nguur ñëwee mu ànd fekk firnde ku ko wax ñu saaga la mais ñu jàppee ñun tey ñu nekk ci pouvoir bi à la noonu la ñu jàppee ñu nekk ci opposition bi jàppee ko ñenn ci nekk société civile bi suñu ay ay morom yoo xamante ne tey jii leer na ni que ni xëy na lañ doon xeex ak lay am tey dans le comportement mooy dañuy utiliser la waa ji woyoon ils nous utilisent comme des chameaux libre d'être des chameaux et des moutons nga Panurge ñi nga xamante ni dañ koo bëgg mais yora li ñu doon wax résistance bañ ko commencé mooy ba ñu tegee COS M23 nekkoon ak Zahra Iyane Thiam ñu ñu convoqué ñu café de Rome accepter d'être utilisé comme nous nous acceptons d'être utilisés parce que c'est le système qui est ainsi fait ñoom Badara Gadiaga nga foon su ma juumul ñoom ay daa nga foon parce que ñu ñii ñoo sosandoo COS M23 kii moom ma njëkk proposé su ma juumul moom wala wala Ousmane Ndiaye pour mu nekk coordonnateur et j'en profite dix ans après comme que dañu ne deux mandats la incha allah 23 juin bii ma joxee joxe léegi dem defi leneen mais dafa am ay principe yoo xam ne dañ ko doon woote am ñu si constant sénégalais yi nag xam nañ ne si constant xam nañ ñi nekk dans l' émotion xam nañ ñi nekk dans la manipulation ku nekk ak sa njaboot la mm-hmm. mais fii askan wi dañ ne ko fii waxtaanee dañ ne nit leen yeewu leen ngeen bañ ñu leen di utiliser je prends des cas am na ñu fi àndoon nag Macky Sall élect euh, nekk Benno Bokk Yaakaar assumer sa gouvernance ba ñëw ba fay élection waxtaan ak Macky Sall dégguwul ak ñoom ci post yu mu leen jox ñu génn di dem opposition am na fi la réflexion que j'avais autant je m'étais dit mais ñi si par hasard dañ leen joxoon li ñu laaj ndax di ñoom ñooy génn di campagne naan Macky Sall la ko yor ñooñu laay gis tey après ñooy ñëw ci opposition bi ne Macky Sall dafa bon lan moo tax Macky Sall bon ndax na mu yore réew mi la wala da ngeen d'accordul ci liñ ko laaj il faut arrêter ñi nga xam ne nag xëy na dina leen jëriñ boo faloo wala dañuy taf yëngal dañ d'accord mais ñun ñi nga xam ne waxuma dañ jàng de am nañ di ko jëfandikoo dañuy jékki-jékki ne mais ñii buñ ñu yàpp waay parce que loolu la buñ la joxoon nga dem nga tagg Macky Sall nga ànd ak moom bu la joxul nga génn sànni xeer ñan ñoo gii ñoon maire musaa Diop dafa sàcc ma sàcc la de dañ ko jiiñ ne dafa sàcc suufu Dakar dem dikk yor nañ preuve yi mi ngi nii mais ñooñu ñoo wëlbatiku ne voté leen maître Moussa Diop def ko tête de liste à Podor. étouffer le problème ñooñu ñuy wax génn leen xeex génn leen dee il faut arrêter ñu xeex génn ñu dee nañ respecter la loi nañ respecter texte yi nañ régler seen problème politique ñun nañ góorgóorlu ñu yeewu. Bamba